yu dul jeex ngir rek mën a génn ci seen noppal liggéey bu ñu lal ci xarañteef bés bi le jour yi ni kay ne avocat yu Sénégal nag loolee kenn dootu ko naatable ci seen man-man rawatina ci denduko Afrique gi nga xamante ñu ngi koy lëmbee ak dossier yu tàng jër yi ni kaay gi di bés bi le journée avocat yu réewum Sénégal kay daanaka denduko Afrique moom lépp lu fi ñoree rek sapp nañ ci seen loxo taxam ñi ko ci seen xam ba xam xorom le saf di kaan yi ni kaay gi di bés bi le journée ñi di avocat yu réewum Sénégal nag ñi ngi wéy di yaata yumbee ci denduko Afrique gi ak lépp lu di dossier yu tàng tàng jër tàbbi na ci seeni yoxoo te daañu ko layil ba am ci ndam xoolal ma maître Ousmane Seye ak Seydou Diagne ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoo solo robu avocat premier ministre bu Alpha Condé ba woon ba mën koo tekkil ab jatankam maître Ciré Clédor Ly moom ca gànnaar la daal di ji akimo mbirum Abdoul Aziz ba mën a yey ñamuy la yokk yi ni kaay loole yëpp nag kenn du maître Sidiki Kaba ak Boukounta Diallo ñi nga xamante ni yi ci dendu ko ñoom la ñu daal di xëy àddu ci mbirum Aminata Touré ak waa PDS ana moo jotale Samba ak ab ko ci xelmati rek ak gitangaas goo xamante ni la ku ci nekk yaa ngi ko dencal sa morom fas yéene koo ba mu saf sàpp yi ni kaay gi ak xaritoog lamiso moo fa jeex tàkk libéraux yi nag nee nañu kii di Aminata Touré yëlimaanu jëwdin ji fi woon la bëgg rek mooy mu daal di ubbiwaat lépp loo xamante it ab dossier la dañ laqoon ko ci IGE te loolee ma nga doon junj ko may la ka laq-laqal yëf yi mel ni xuloo koy sànni sa morom tax waa PDS bu ñu waafee ki nga xamante moo di Aminata Touré dàqe na leen ngir wejje seen mbóot addu lenn lu dul ne ñoom waa PDS ci boppam seen diggante président Macky Sall am na ci lees waxul du lenn nag lu dul ne ab baara yëgoo boo xamante ni moom am na ci yàqin te loolee mooy li nga xamante moom lay libéraux yi di nës nasal ci njiitam Sénégal mu doon lool bu dul dëgg tamit mën naa naxal am xel ki ko wax du kenn ku dul Aminata Touré jege ñaala président Macky Sall ba woon ci ay jamono waxtu julliw tisbaar démb ci néegi ndangaan la ko fekk du kenn ku dul Ousmane Sonko njiitu Pastef maire gu diwaanu ko Ziguinchor source a moo ko daal di toppandi ne gannaaw bi mu bàyyi ko diwaanu ko Touba Mbacké yëngal fa ku doom rig fàkk daxinam démb nag diwaanu ko Kaolack daal na koy dalal ci jullik di nemmeeku ca biir njaboot ga yéenekaay gi di Source A ne wàlleew nañu seen dañoo fàttu woon te seeni bunt ne duñu xaar gan gi lee di Ousmane Sonko waaye nag boobile buntu ci di doomu xale bi moo ko daldi wekki sànni ko géej fa mu jot jaar làq na seen ngër ngërmande la ko tijjee yéenekaay ni imam ratib bu diwaanu ko Sédhiou ay kàddu cant ngërmande la daldi jagleel président Macky Sall ak yéesalaatu ko seen barabu jaamukaay yàlla boobi te lu mu gàtt-gàtt def na ci juróom-ñaar téeméeri ci suñu koppar